jërë ngeen jëf euh, mbokk yi ci ànd bi ànd ak ñun ci euh, site bi nga xamante ni moo di euh, dakarvision point net ginnaaw bu ñu sante yàlla julli ci sangu-sangu yi di wax jërëjëfe Serigne Touba tey nag ñu ngi fii ci Touba fi nga xam ne moo di Daaru Xuddoos ñëw nag kër Serigne Baba Guissé mu Serigne Abdou Khafour waxtu yi ñuy wax ak nag ñu ngi ci waañ wi ci li nga xamante ni moo di wàllu bernde yi ndax ku ne xam ne ni Serigne Bamba moo ne woon ba bésub màggalam bi saa bu ñëwee nañ ko ko santale suñu borom li ko dale ci ginaar euh, ba ci gileem euh, kon bu nu waxee ginaar ba tudd gileem nga xam ne kon bernde rek mooy dëgg euh, ñi ngi taxaw nag ak waa waañ wi taxaw ak ki nga xamante ni daanaka lépp loo xam ne lu jëm ci waañ wi la moom moo yore kaddu gi kilifa gi ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu ziar bu baax. waaw tur bi nan la. Serigne Lamine tey ñi ngi fii ci waañ wi ana tey lan nga ñuy wax ci ni nga xamante ni noonu ngeen nekkee ci waañ wi ak taxawaayu màggal gi. ah xanaa di sant Serigne Touba rek tey mu yokk ndax euh, tàmbali bi yàggoon na metti woon na waaye tey jii ñun ñi ko tàmbali woon tey jii daanaka dem nañ ba feex ba tey jii suñuy doom ak tey jii suñuy rakk ñoom ñoo nekk ci waañ wi ñun nag la Serigne bi boole woon ak Cheikh baaba bi mu ko seexalee Cheikh Abdou Khafour bi mu ko seexale ñun la boole woon ak moom man ak sama yeneen ñett mbokk góor yàlla ñoroon liggéey bi di ko màggale ay at ay ati at ci ginnaaw ba fi mu toll nii maanaam aw nañ ñi ci liggéey bi ne ni waañ bi ngay gis ni maa ko yor ay at ay at yu bari daanaka ñaar fukki at ak lu topp ba tey jii suma jarbaat bii di tey jii di sa baabu waat tey jii moom moo yore liggéey bi moom bu ci wutu kon dama lay bàyyeek moom mu wax la li nga xam ne moom la tëddee fi mu toll nii jërëjëf euh, ace kon euh, Cheikh Baba Wade euh, moom mi nga xamante ni fi ma toll nii nag moom moo wuutu magam ji nga xamante ni nii moom moo yore woon liggéey bi Cheikh Baba ginnaaw bu ñu la nuyoo di la siyaar ci bésu màggal gi ana tey lan nga ñuy wax ci li nga xam ne moo di waañ wi. waaw maanaam dañuy dolliwaat santaat sëriñ bi di sant tu Touba loolu sant seex baaba moom sëñ Abdou Khafour Mbacké di ko ñaanal mu yàgg loolu te wér daanaka lépp suñ kàddu suñ jëru lemi si la wax na ko. maanaam depuis ay at moom la woon te booba daanaka ay tuut tànk lañ woon nekk ci moom ba tey ñu ñoo jëlaat yor liggéey bi màggal gi comme daanaka ni nga ko waxee sànq rek Serigne Touba daanaka jàng alxuraan la ci wax ak xasida ak bernde daanaka tey fi ñu fekk nii ci waañ bi nii gaa ngi nii ci waañ bi waaw ñu ngi bernde ñu ngi ci essane ñu ngi nii ci añ bi daanaka teg nañ reer bi mhm. waaw essane daanaka daal lu dul wax lu dul jërëjëfe Serigne Touba rek mais nan ngeen mën a boole euh, añ bi ak euh, reer bi wala dafa am équipe bu yaatu boo xamante ni dañoo topp ci sa ginnaaw euh, boo yëkkatee rek ñu ànd ak yow. waaw waaw maanaam loolu dañu ciy dolli di sant Cheikh Baba maanaam Cheikh Baba dañoo won maanaam yoon bi ni ñuy liggéeyee Serigne Touba jox ñu jundukaay daanaka doon doon teg añ kese di xaaraat ay heure mu ba doon deux heures temps wala trois heures temps pour tegaat reer bi maanaam léegi dañuy teg añ teg reer maanaam effectif bi daal alhamdulilah daanaka mën na. jumtukaay tamit aussi lépp yem. waaw maanaka daanaka daal alhamdulilah sant Serigne Touba rek. sant Serigne Touba rek waaw. jërëjëf Serigne Touba kon euh, yaakaar naa ni mbokk yi dégg ngeen kàddu yooyu noonu nga xamante ni moo bàyyi ci ñi nga xam ne ni ñoom ñoo yore waañ wi. Euh, kon bu ko defee euh, damay wax rek suma caméraman ñu dem xool waañ wi ndaxte soxna yi ñoom it fi nii def nañu seen ay laxasaay ñu dem rek waaw waaw kii nag moom mooy moom mooy moom mooy coordonné waañ wi Baye Ali Ndaw ngi noonu Baye Ali bala ñuy dugg ci biir waañ rek xanaa rek yow it nga wax ñu sa taxawaay ci waañ wi dëgg la ñu ngi leen di siyaar baax di leen di leen wax euh, axlan wa saxlan dool yi santaat Serigne Touba ci bés bi nga xamante ne euh, suñu borom dimbal nañu may ñu taw féex bañ fekkee ko kon dañuy dellu rek sant Serigne bi dool yi santaat Cheikh Babou li sa gisee moom Cheikh Abdoul Khafour di ko dool ñaanal mu yàgg fi lool lool te ànd ak wër dool yi ñaanal ki nga xamante ni moo fi Cheikh Moussa Mbacke Ilimane wuutu fii sëñ Abdoul Khafour Mbacke di koy dool yi ñaanal moom it mu yàgg fi lool te ànd ak wër daanaka liggéey bi moom euh, ñu ngi ci naan la liggéey moom en amont la ak en naval waaw kon nag dañoo toll ci bés bi nag nga xamante ni mooy tey nga xam ne bésu màggal gi waaw li waraloon dem bi waaw kon tey jii dañuy santaat lépp rek liñ fi taxawee suñ taxawaay moom dafa nekk ci cadre supervision rek di xool li nga xamante ni mooy ay manquement ak li nga xam daal yow yaay superviser gaa yi daal fii ci waaj bi waaw ci liñ ko mën tënkee daal waaw cadre boobu laa taxawee daal ci ci ndigalu samay jëwriñ daama dañoo baax rek waaye ñoom it dañ leen delloo lépp daal waaw lépp daal dañ leen ko delloo kon kaddu gi lool la woon ay kaddu barkeelu rek kon waañ baa ngi noonu ngeen dugg